xam nga ku ci nekk ku am formation rek am nga déformation journaliste bi am na déformation professionnelle keneen am na déformation professionnelle l'inspecteur que je des impôts et domaines am na déformation sama déformation mooy dama jàpp ne que dund ci communauté maanaam ci askan mënul nekk bu dee ku nekk amul looy jël diko xagn sa bop diko duggal pour ñepp bokku ko parce que dafa am lo xamantene nit mënalu ko bopam ku génn fi ku la ëpp doole songal keuf sa portable sa premier réflexe moy dem police wala dem gendarmerie mais bo démé police lan motax police am parce que état dafa jël recruter ay nit former len di len fay équiper len bo soxla justice da ngay dem ci justice parce que état dafa jël ay nit former leen équipe leen di leen fay salaire mais loolu mënuloo ko sa bopp mënuluma ko sam bopp su ma jógee tey ne damay dem Ndiaganiao ci tëli laay topp mënuma tabaxal sam bopp tëli di ko topp de dakaar à Ndiaganiao kon am na loo xamante ne nañu nangu ne que nguur rek moo ko mën a def mais nguur fan lay jëlee xaalis bi ku ne xam na nañu dañuy xëy rek dem dagg ay suñu billet commencé jënd lu ñu soxla demewul noonu kon ku nekk da xool ci loo am ñu comp ci tuuti nga dugakol ci gafa gi ñu dem gafa googu nag saytu ko nu mu gën a rafetee pour jëriñ askan wi man bi may nekk inspecteur des impôts et domaines mën ngeen ko dem seeti ji bu ñu commencé di def ay remise gracieuse maanaam di bale impôt ay nit 2016 lañ def suñu conférence de presse ne lii jaaduwul attaqué ministre bi ñu ne ñu dañoo génn obligation de réserve ba menacé ñu pour ñu pour dàquñu waaye dañ jàppoon ne dafa baaxoon sénégalais yi xam ne que am na ñu ñuy bàyyal ay impôt waaye am na nu ñuy ñu ñuy noggatu tamit di di leen pressé pression gu métti bu dee dañoo ne par exemple dañoo soxla 7000 milliards ne sénégalais yi koy joxe bu ko 18 millions yi sénégalais yëpp joxe woon ku ne dina oyof ci yow waaye bu ñu bàyyee 18 personnes joxe ko ku nekk day gën a diis ci yow donc il faut que ñu répartir charge fiscale bi ma yàgg jël sama dossier tamit liggéey ci. gis fraude fiscale notifié ko ay nit ne parce que Mboko diw la xaritu wala wala wala ma dem ba dogal ma la ne que soxla lépp urgence la ci ndaw mi ndaw infrastructure ci formation professionnelle ci agriculture tout est urgent ma ne mais xaalis bi fan lañ koy jëlee bu marge pour dem lebi parce que avant ñun diggante deux mille dix neuf surtout ak deux mille vingt quatre dañoo leba leba leba leba leb am na foo xamante ne mënatuñ ko leb parce que encours bi ñuy fay chaque weer ci bor yooyu dafa dem bët diis ci état bi boo moytul bu ñu continuer noonu dootuñ ko attanu ci te kon mën na créer problème kon lan moo des xool ci biir réew mi ñii fay ñu nee leen gàcce ngalaama continuer leen fay ñi fayul ñu ne leen nag kaay leen nag ngeen def ni ñëpp parce que fii amatul kumba am ndey ak kumba amul ndey loolu mooy jubanti jubanti nag bu nekkoon lu ñuy naan dañuy na jàpp ne ndox mu weex tàll la ndox mu weex xatt la parce que neexut li gën a confortable pour quelqu'un koo xamante ne daawul woon fay impôt mooy ñu bàyyi ko rek mu bañ a fay impôt parce que yeggul métit bi mais bu mu ko buñ ko bàyyilee mu bañ a fay impôt boobu tamit mu ngi ñeneen a ngi ci loru dañoo ne juste ñu dul woon fay gaay leen ngeen fay ñi nga xamante ne dañu leen doon jàppal tànk amatuñu ku leen jàppal tànk parce que ñëpp dañoo war a contribuer kon performance yi nga xamante ne administration fiscale ñu ngi koy def dès 2014 la ANSD def un rapport ne les performance administration bi kese kese kese lu mu ñuy côté ci perte de recette 214 milliards la maanaam saa yu ñu defaan réalisation ba at bi jeex bu bu ñu nekkoon à au max de nos performances mënoon nañu def deux cent quatorze milliards supplémentaires ñun à l'intérieur xamoon nañu ne ëpp na deux cent milliards di dem par rapport ak li nga xamante ne war nañ ko mën a def beneen bi nag mooy man du man maa inventé impôt de ñun ñi nga xamante ne ñooy suñu ndaw ñu ñuy teewal assemblée nationale ñoo dem assemblée nationale voté code bu ñuy wax code général des impôts chaque année député yooyu voté loi de finance au non du peuple pour wax askan wi président de la république am nga autorisation dem jëli ji xaalis ci askan wi jusqu'à hauteur de temps bu doyul jox nañu la autorisation pour nga dem leb ji kon ñun ñoo consentir ñun ñoo nangu ne que dañuy jël ci suñu alal jox ko réew mi pour ñu mën a liggéey pour mu mën a liggéey loo xamante ne ci njëriñu askan wi la dans cet exercice tout le monde est obligé participer maintenant pression fiscale bi en réalité c'est pas une pression en réalité c'est qu'on a juste fait sauter un verrou de blocage bu donner privilège à certains ba pare di gëna a loofloo ñenn ñi nga xamante ne ñoo doon supporter la pression mais loi boobu wax ne ni sart yi la ñuy fayee impôt loi boobu moo wax ne ku ñëwul nan lañ koy def maanaam bu ñu xaaree nit mu war a fay fayul te charte yi tegoo nañ ñoo xamante ne dafa war fay loi dafa ne dañ koy njëkk a bind ne ko ah ameel nga ñu lii bu tontuwul lu mat weer ñu jàpp ne luñ ko wax dindiwu ko bu tontoo bu ne lu mu wax ne nanguwul din andi ay firnde ñu ne ko kon ñun ñoo juumoon dindi nañu ko bu fekkee ne nag am luñ ci d'accord am luñ ci d'accordul dinañ confirmer lii bàyyi la le mais ba tey du lool mooy tax ñu dem saisir ay comptes dinañ demaat ci moom nee ko kaay fay amu ah, am possibilité ñëw ne ah d'accord li ma mën a fay nii laa ko mën a fayee muy moratoire bu demee nag ba respecté wul loolu yëpp yenn saa nag mooy waral ñu dem bloqué compte yi ko nag ah ñun xam nañ fa sa xaalis nekk te bu ñu fa fekkee dara nag foog ñu jël loo xamante ne réew mee ko moom balaa muy ñëw ci yow kese kon lii rek la nit ñi def mais yaa mieux loi boobu dafa ne boo demee jël impo ci ay nit que mu nekk TVA boo facturé wala mu nekk retenu à la source boo def ci ay nit maanaam fay leen salaire tànq seen impôt nekk danga koy reversé ji téye ko mais loolu tudduwul neneen lu dul détournement de deniers publique maanaam boo amee salaire yi nga waxtaan ak moom ne weer wu ne da nga koy fay cinq cent mille weer jot nga fay ko quatre cent cinquante mille ne ko yoon moo ma ne ma tànq ci cinquante mille pour sa impôt ndax citoyen nga Sénégal Si ko bamu nek 100 100 millions 200 millions ba wax sax ay milliards nga ko pour defar sa lolo détournement de deniers publics de la même façon que un ministre ou un directeur général des impôts ou un directeur général d'une administration ou d'une société nationale nu muy le détournement de deniers publics amul différence détournement détournement la y a na wax na lan la yoon wax loolu lañu la war a def du man maa koy wax de yoon bu ñu voté moo ko wax mooy dañoo directeur général des impôts dafa war a porter plainte ci procureur de la république te dès que cette plainte là et portée ñu gis ne que les faits sont réels le mandat de dépôt est obligatoire pourtant ba fu ñu toll nii porté gu ñu plainte contre kenn pour ñu jàpp ko mais xool leen actualité internationale bi dans les pays yoo xamante ne développé nañu nanguwuñu kenn foowe impôt te dañ ciy tëj ay nit di ci topp ay nit mais ba léegi defuñu ko parce que dañ jàpp ne que am na pédagogie bu ñu war a dérouler sensibilisation ak éducation citoyenne waaye ku ci nekkul dëgg ci dëgg nag xamal ne yow nekkoo ci dëgg nga jéem a ajusté wu et puis dans la préoccupation bu ñu am tamit pour soutenir le secteur privé et c'est une préoccupation forte ci man ñu gunge leen luy leen war lu lu leen war ñu def ko mais ñu xool naka la gën a oyofee ci ñoom mais nag temps bi ma nekk ci kaw réew mii bu soobee la dina am ñaar ñoo xamante ne ñaar yoo xamante ne moom ku ci tëdd sa xel mën na dal mën na ci dal mooy fay impôt dinañ ko gën a fulaal ci réew mi waaye impôt boobu bu ñu ko jëlee ba dugal ko ci loxo euh, euh, trésor public dinañ ko saytu ba fu mu war a dugg mu dugg foofu te ku ci def naka sul du noonu yoon yoon def nu mu prévoir ne loolu la war a def